Sénégal set TV un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée xam ngeen ni nag bi màggal bi tàmbalee ba léegi euh, que ñu ngi ci weeru safar bi nag Sénégal 7 dafa euh, jël lépp lu nga xamante ni programme am la daal di koy indi fii ci Touba tax nag également ba lépp lu nga xamante ni rek aajo na ci màggal gi dinañ ko dem euh, wari ji ko indi leen ko pour votre plaisir à rappeler que ni nag tey ñu ngi fii ci Touba Janatu ñëw certifié ki nga xamante ni moom moo di la xalif général de Jantakon. di Serigne Saliou Ndigal Thioune ngi fas yéene échanger ak moom ci li nga xamante ni moom moo di wàccaayu màggal gi ginnaaw bañ ko nuyoo ba noppi nag dañ koy bàyyi moom également mu nuyoo ak yéen kilifa gi euh, ñu am mbégte lool tey di janoo ak yow euh, ci euh, suñu chaîne bile di la di la ziar ci weeru safar bi ñu nekk. maa ngi leen di fay maa ngi leen di delloo nuyoo di tàmbale suñu kàddu di sant Serigne Touba. Mm. di ñaanal Serigne Mountakha xalifatul am mu yàgg fi téwér euh, di ñaanal sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëriñ Saliou di sunu sang mm-hmm. ñaanal ko moom jabootu sëriñ Saliou gépp ñu yàgg fi téwér di bég lool ci dalal leen mm-hmm. fii ci jannatul maxwa mm-hmm. kër sëriñ Béthio euh, ngir ñu waxtaane euh, li nga xam ne fi mu ne moo xew muy màggal gi màggal gi nag wax ci moom dañ ciy sawar lool waaw ban yëg-yëg sax nga ciy am bu ñu dëgmalee màggal. Hmm? ma ni ban yëg-yëg nga ciy am bu ñuy. Ah, dëgmalee màggal ah waaw mbégte mbégte mu hmm. màggal moom day bisub cant te cant gi moom Serigne Saliou ci boppam moo xamal luy màggal ginnaaw bi ñu ay murit war màggal gi waajal ko sëriñ bi ci boppam moom daf ñu cee jox ndigal. Hmm. maanaam sëñ Béthio ci jamono jooju. la woo ba mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga wax sa taalibe yi ñu fonk màggal gi mm-hmm. kon ñun ndigalul sëriñ Saliou lañ ci am moo mm-hmm. tax ñu koy def mm-hmm. waaye ay murit lañu danoo war a waajal màggal gi waaye nag euh, ndigalul sëñ Saliou loolu daa tax loon ko fonkoon rek ñu gën ko fonk mais màggal gi tamit atub sëñ bi mu ngi am ci contexte bu xaw a particulière euh, dëkk bi xawa a euh, dëgër tuuti tey ji naka nga def ba tey jii fii sa wayjur bu bu bu tedd bi daan teg tànkam nga fase na fa teg sa tànk ci lépp lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di wàccaay ak ah, rappelé ni nag suba lañ jëm ci li nga xamante ni moo di dàqu nag yi dàqu nag yi waaw moom day ñu day ak cant moom eh, ab cantaakoon day moom du jàmbat eh, dëgëraayu dëkk bi yaa koy tudd waaye man dama koy jàppe ak cant ndax day day mel ni sax nun yëgunu ko mm-hmm. bu bu bu dëgëree it wax dëgg yàlla nun yëgunu ko mhm. li nu war ci màggal gi daal mhm. sëriñ Tuubaa dimbali nanu ba mhm. eh, danañ ko jëfe mooy bernde suba yaa ko wax dàqum nag yi danañ ko def eh, am na ci yu yees peq yoo xam ni eh, di nga xam ni moom wax dëgg yàlla dëggaraayu dëkk bi yëguñu ko suba di sa di danañu dàq nag yi danañu waajal bernde yi danañ jëfe màggal gi nun ko mës a jëfe waaw ci nag yi ren lan lañ ci mën a xaar ci ay ci ci lim. ah ci lim nag lim bi de moom damay bàyyi. Hmm. yéen ñi nga xam ne ay. dinañu ñëw incha ngeen gis ko. Hmm. bu ngeen ko gisee di ngeen mën a xam. Hmm. waaye daal li ma la mën a wax daal mooy luñ fi defoon daaw daal. lu ko ëpp di nga ko fi gis rek. teraanga yi ñu daan gis également Cheikh Béthio daaw ko jëflante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yeneen kilifa. yi nekk fii ci Touba. ren également lan lañ ci war a mën a xaar ci cheikh bi di daan na def bu màggal jotee euh, képp koo xam ni euh, war ngaa am sa wàll ci li nga xam ni moom lay moom lay bernde danañ ko danañ ko wéyale loolo loolo mu daan def danañ ko wéyale mhm. waaw mhm. danañ ko wéyale fas nañ koo yéene euh, luñ ci man rek def ko ci mhm. lan la Serigne Saliou ndigal Thioune doonu tey jii ci waajuram bi Cheikh Béthio ah loolu nag man de jàpp naa ni Euh, moom day ñu ngi ko fi toogal te mata di ko lool sax waaye it ñu ngi jéem di nab nabi noonee mu daan def ñu koy jéem di ci di ci àndandoo ak bokki taalibe yi ñu am pëstëf lool bari jom lool di ko àndandoo lu mu lu mën a xew ñu taxaw ba day mel ni lépp loo xam ne daan na ko def ci euh, ndimbalam ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem di ko di ko di ko caro roy ba mu mel ni a ah, wax dëgg yàlla yéen ay gis yéen a koy gis ñu ngi ciy góorgóor góorgóorlu bu baax a baax. Mhm. ci wàllub cant gi aussi tamit nee nañu ren mun nañ xaar ay yeneen i innovation ci li nga xamante ni sax moo jëm ci présence bi parce que mhm. euh, ñu bëre euh, daawoon nañu gis ci cant gi ñenn gi daawoon nañu ñëw toog duñu ñu ànd indi ki muuraay ak yu ni mel mais nee nañu yooyu yëpp dañ ci fas yéene indi ay coppite. Mhm. coppite yooyu mun nañ xam ci lan la aajo wala ndax ci ci ci ci màggal kese wala dafa fas yéene nekk lu nga xamante ni da ngeen koy perpétuer même ci cant ay coppite amu ci c'est le comportement de tous ci ab murit ci ab cantaakoon mu war a am melokaan woo xam ni ku ko gis naw ko ca loolu moom day mel ni a ah, amu ci coppite loolu noonu la mas a doxe euh, Touba nag fii moom daa am loo xam ni dafay dafay dafay yell mooy euh, bu dee soxna nga war a muuru bu dee góor nga war a sol lu jot mel melokaanu murit saadix loolu nag ah cantaakon yi nag ci loolu la nu mas a nekk day mel ni loolu moom mosuñ ciy jóg ndax suñu sang ba day ak taalu bi rek la nu mas a jàngal mosuñoo jàngal leneen lu dul ak taalu bi yiw googu ak ay attitude yu ñu war a am ak comportement yu ñu war a am saa su ne daf ñu ci daan ñaax waaw loolu moom wax dëgg yàlla ab yar la boo xam ni moom ci moom lañ ko jëlee Euh, ba tax na gisuma ci ay coppite yu ñu war a am à niveau. Mhm. alors bu ñu waxee également. Mhm. Euh, Cheikh Béthio dañuy wax mhm. janatu bi ñu nekk. waaw fi ñu la ah. fekk nii tey jii euh, Serigne Saliou Thioune ban yéene la am pour janatu. janatu ma wax waaw moom de yéene ji ñu am mooy d'abord ndox mi fiy ñàkk ñu fexe xool ak kilifa yi nu ñuy def ba ndox dootu fi ñàkk. ndax day mel ni ñetti màggal wala ñeenti màggal la yoo xam ni jafe-jafe ndox dañ koy am euh, xool nu ñuy def organiser woo ba jéem a lijjanti forage boo xam ni dina fi dina fi dina fi dina fi mën a am. Mhm. bu ko defee forage bi dinañu mën a dimbali buñ ko bu dee ñun suñu bopp. ñoo koy mhm. financer suñu bopp sax. ñu def ko loolu ñu ngi koy xalaat. Mhm. ndax daal ndox ñàkkum ndox mi metti na. metti na trop. Euh, bi ci tegee mooy. Euh, xool nu ñuy def it ba euh, dëkkuwaay yi nga xam ni am na ci taalibe yoo xam ne ba léegi amaguñu fu ñu dëkk ñu xool ñi nga xam ni am nañ fi ay kër yoo xam ne sëriñ bee leen ko joxoon te suuf si sëriñ bi moomal ko boppam maa ndax sëriñ Saaliwoo ko ko jox ñu seet ñi nga xam ne dañ ko fee teg booba ak léegi ba muy ba mu fi nekkee jox leen ko defuñ ci dara ñu seet ñi nga xam ni mën nañ koo mën nañ ko liggéey mën nañ cee dëkk ñu jox leen ko ñu dëkk ci mhm. loolu Euh, xalaat bu ma am ci fexe ñu ñu def noonu ci dëkkuwaay mhm. bëgg naa it noonu ko président de la république digle ñu ñu garab yi ñu fexe reboisement. Mhm. fexe gox bi am bari ay garab. Mhm. waaw bu ko defee. Euh, mu gën a ker gi di gën a bari ndax ku nekk xam na ni tubaa dafa tàng. Mhm. te garab nag daa bokk ci ci ci ci luy dundal doomu aadama. kon de xanaa rafetlu woon nga keroog bi mu teewee Touba. ah rafetlu woon naa ko bu baax a mhm. baax rafetlu woon naa ko. Mhm. surtout nag ci muy jëmbat ñuy muy wàllu reboisement. léegi nii yaa ngi wax ay waxu ndox. Euh, jamono ji màggal gi di am également mu tombeek nawet mhm. Touba bëri loolu ndox mhm. Mhm. Euh, ñenn ñi dox ci ay jéego donte ni am na ay moto pompe ak yu ni mel mais askan bi ne nañ ñoom canal gi bal moo leen gën a sonal bokkut ak li nga xamante ni moom moo di ndoxu taw bi ndax da nga jàpp ni taxawaay bi ñu ci war a taxawee dafa des wala boog lan nga jàpp comme solution waaw euh, li ma jàpp comme solution mooy ñu ñu defaraat assainissement bi dëkk bi assainissement dafa jiitu dëkkuwaay sax Euh, loolu da dëkkuwaay yi da koo jiitu te bu ko defee jafe-jafe yi day am tout le temps ndax fii assainissement bi war a jaar nit ñi dëkk nañ ko ba noppi il faut des solution nag jàpp naa ne ñi ci seen xam-xam màcc danañu xool ban solution lañuy def pour mën a fexe ba bu tawatee ndox mi du taa wala boog ndox mi di dëkk jaar ci kër yi ba nit yi di am ay jafe-jafe mm-hmm. loolu moom Euh, wàllu technique la loolu moom xam naa ni dama koy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am xam-xam. Hmm, alors duñ la teelu yàgg waaye tamit duñ fi ñëw ba dem. Hmm. te duñ la bàyyi nga ñomal ñu tuuti. ci diggante Cheikh Béthio ak Serigne Saliou. ah loolu nag boo ma ci laajee dinaa ci sawar ndax man dama juddu rek fekk sambaay di ànd ak Serigne Saliou ci loolu la ma yar ci ay jamono yoo xam ni euh, euh, daaray sow yi rek day mel ni. ñoo fi nekkoon booba xel koom sax amagul kon xam nga yàgg na mm. ci ginnaaw bi lañu def lañu ñu gor xel kom jox ko sëriñ bi xel kom googu ma fàttali ni la sëñ Béthio la fa sëriñ Saliou yebaloon moo ko gor moo moo moo moo Baye yi ñoo fa nekkoon baay Fall yi sëñ Modou Aminta Fall ñuy ñuy gor di déjati ëkk yi sëñ Béthio di leen toggal loolu nag yàgg la c'est toute une histoire diggante cheikh bi ak sëñ be eh, ak sëñ Saaliw moom ci boppam da ko daan relaté juróom-ñetti at la fekk mu jébbalu ci sëriñ Saaliw fekk ko ci tool baayam ca tase kon loolu ça remonte histoire bi dafa bari mm. waaw euh, c'est un modèle achevé nag de de de de ci ngëm mm. sëñ Béthio mm. wàllu foi topp na sëriñ Saaliwu jox na ko léppam yitteem yëpp joxoon na ko ko jotam gépp joxoon na ko ko mm. xolam bépp joxoon na ko mm-hmm. sëriñ bi ci ci ci ci ci tolluwaayam ci ak foofee mu ne xamoon na ko ba wóolu woon na ko àndandoo woon nag moom liggéey bi nga xam ne moom la daan liggéey ci tool yi mm. di ko liggéeyal sëriñ Touba fonkoon na ko ba gis nga ko seexaloon na ko defoon na ko muy moom jàpp newoon na ko képp ku jébbalootu ci yow na nga xam ne may nangu képp ku jébbalu ci yow dina am ngërëmul yàlla defal naa la maxrajan defal naa la euh, mbaa la lu nekk sëriñ saaliw garaat bu ne takkal na ko ko ndax son dévouement ci ngëmam ci bëggam ci toppam bu mu toppoon sëriñ saaliw ba ba ba fii may wax ak yow ñu ngi koy nettali ci ay taarix ci ay yëf digganteem ak Serigne Saliou mm. ci loolu nag la yar mm. moo tax du lu bees. Mhm. ñu ñu ci jéem ñu jéem a topp ci tànk yooyu. Mhm. ndax xamuñu lu dul loolu. Mhm. ci sëriñ sëriñ rek la ñu xam. waaw kon nag eh, na xam ne daal loo fi gis rek sëriñ Saliou la tàmbalee. ci sëriñ Saliou la saa bu ñu ci ci waxtu bi. bay fàttaliku Cheikh Béthio sa xel ci la lay def. waaw ci bu ñu masaan a xëy màggal. ànd ak moom dem siyaare ji sëriñ Saliou màggal sëriñ Saliou daa taamu woon. mu koy mu koy muy jëkk a gisee ak moom bis yor yoru màggal bis yooyu heure bu màggal ñëwee day sama xel da ciy dem ndax dañ fi daan jóge fajar di dem kër sëriñ saaliw bu ñu demee toogandoog sëñ saaliw mu xelil ñu kafe ñu toog waxtaan ak moom ba daanaka màggal gi waaj ki ñuy dog di dem si mm-hmm. bu ñu ñëwee dajeeg mu dajeeg mbooloo mi bernde yi sant gi mm-hmm. ngoon gi ba bët set day fanaanee sant sëriñ saaliw mm-hmm. alors euh, gàmmu gi également lan lañ ci war a mën a xaar. Ah, gàmmu gi tamit ñu ngi koy waajal. Mm-hmm. ndax Serigne Saliou bu ci ak fàttali. bu daan wootee màggal la daan woote gàmmu en même temps. Mm-hmm. kon ndigal yi da caa bokk ñu waajal gàmmu gi. Mm-hmm. gàmmu gi it nii ñuy waajale màggal gi rek lañuy waajale gàmmu gi. ci bernde. ci ci ci ci ci yu saf sukkër ci ay naan. ci loolu nga xam ne digle nañ ko ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam. kon nag. Eh, na ngeen ko waaj maa ngi mm. leen ciy invité. dinañu ñëw ah, incha allah waaw màggal gi moom. loolu suñu yëf la eh, eh, suba la ñuy waajal dàqum nag yi. Mm-hmm. na ngeen ko teewe mm-hmm. ba ba rek gis am na sax xaar tey dàqum nag yi ñu ngi ko doon xaar tey waaye dañ ko bàyyi ba suba. Mm-hmm. suba ndax mu gën a yaatu. mbooloo mi man koo fekke suba incha allah dinañ ko def. yéen ci seen bopp di ngeen gis. ak seen bopp ñun ci ak cant lan ne. waaw. alors lu weesu nag li nga xamante ni moo di diine gi ndax sëñ bi dinay faral di topp actualité politique waaw ñu ngi koy topp parce que nag euh, actualité politique mënta ñàkk ñu koy ñu koy topp mhm. bien que du suñu wàll ndax ñun ay taalube lañu man du bëgguma di wax ci politique parce que ab taalube daa moomul boppam ndax duma jóg wax lii bu subaa sëriñ bi wax leneen mhm. ñuy juyoo kàddu boo leen di dénk ñoom way politique man li may def daal mooy tënku ci sëriñ bi rek mhm. sëriñ bi daal lu mu wax rek man ca loola laa dëpp. Mhm. moo tax ma wax ci politique day joxe mm, kàddu boo leen di denk ñoom way politique yi. ah ñoom xanaa nag rek mm. fexe ba réew mi li leen ca war ñu ñu ñu ca. Mm. mooy fexe ñu nekkin wi gën a gën a yomb. coono bi wàññeeku. ci nit ñi ndax nag. Euh, am ci ñoom yërmande day lu am solo la. Mhm. waaw. ma nga tàggatoo ak kàddu booy dénk ndaw ñi. Euh, li ma leen di dénk rek mooy ñu gën a defaru te xam ni àddina daa yàggul te Serigne Touba mii nga xam ni mooy la chance de l'humanité ñu tënku ci. gën a defar sunu taalube gën a xam ni ñun dañ ñoo moom xam ni bañ ñuy sàkk liggéeyal sëñ tubaab rekk a tax. Mhm. ñu jël sunu jot jëpp. ak sunu pas-pas bépp def ko ci liggéeyal Serigne Touba. Mm-hmm. ku ko def doo ko rëccu. Mm-hmm. Sëñ Touba nag boo ko joxee sa bopp mu téyel la ko ko joxee sa bopp mu téyel la ko li ñuy wut yépp ci àddina ci mbiri saayir ci mbiri waaw boo joxee sa bopp Serigne Touba mo mu wutu la ca loola. waaw da wutu ca loola. Mm-hmm. kon jox sa bopp sëriñ Touba. ci teel moo gën. teg sa bopp xam ni ëllëg ñëw na. te daanaka rek lu yëf yi gis nga ni mu gaawee. Mm-hmm. boo ko seetloo buñ nee tey la tey la altine buñ naan samedi jot na day mel ni gis nga ni dañoo taxañ bis yi. Mm-hmm. yëf yi gaaw lool. la jot amatul. Mm-hmm. ku yebu rek dénk sa bopp Sëriñ Tuubaa. ndax pexe amul. Sëriñ Tuubaa rek ay pexe. alors di la bàyyi nga tàggatoo également nga tàggatoo ak say disciples. waaw di leen ñaanal ñu ñëw ci jàmm. mbooleem jullit yëpp rek di di di ci profité di ndokkeel euh, ñëpp ci weeru safar bi di ñaan ñu sëñ tubaa def tawféex ba ku jóg ñëw ci màggal gi sëñ tubaa sàmm la aar la ba agsi ci màggal gi ak jàmm màggal ci jàmm delluwaat ci jàmm mm-hmm. ci barkeb sëriñ Saliou macha allah euh, cantaakoon yi mm-hmm. maa ngi leen di woo fu waaye mën a ne ñu teel a agsi ngir ñu mën a jëmmal bis bi àndandoo ko euh, bëgg naa ñëpp fekkee euh, euh, ndaqum ndagi mm-hmm. ndax lu lu lu luy xoromu doon ci ci ci ci ci ci màggal gi. lu ñëpp di xaar la itam. lu ñëpp di xaar la it. di la jox nuyoo euh, honorable député Fathiam Diazaka. ndeysaan mu ngi lay nuyu bu baax. di la jox tamit nuyu Coromar Ndiaye. ndeysaan waaw euh, bu Serigne Mbacké Ndiaye ku soonoon ci émission bi la. ndeysaan moom également mu ngi lay ziar ci ci li nga xamante ni moom moo di euh, màggal gi. ndeysaan nga nuyul ma ku ñuy wax Moustapha Mboup moo ko jur. Mm. kooku nag mook sëñ Béthio benn la woon. ndeysaan dëgg la euh, même euh, Moustapha Mboub boobu tudd na. Mm-hmm. Cheikh Béthio doom. Mm-hmm. waaw léegi normalement il est à l'étranger ou à Dakar je sais plus. Mm-hmm. waaye moom moom ci kër gi la bokk. waaw moom ci kër gi la bokk. loolu dëgg la loolu dëgg la. ñu ngi ko nuyul. voilà dina ko dégg. alors euh, ça a plaisir tey ñu ñëw janoo ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Saliou Ndigal Thioune bëggoon nañ na waxtaan bi gën a yàgg waaye xam ngeen ni màggal gi ñu nekk euh, jot te it li ñu war a euh, jëfee ci ay activités dafa bëri lool donc daf ni mosal ci li nga xamante ni moo di temps am ko ci sant bu baax a baax Sénégal c'est moom lépp lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di couverture u màggal jëmale ko ci cantaakun yi ah, xam ngeen ni lépp di ngeen ko mën a dund en temps réel ci suñu ay plateforme di remercier également staff technique Sénégal euh, Mbaye Kébé moo nekkoon ci caméra montage bi également chauffeur Mamadou ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Mamadou Thiam di leen remercier wat bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah ci leen di plateau jërë ngeen jëf